Eh, am na solo eh, mën na inscrire comme ni on fi honorable taxawe ñu wax ne nu sommes dans une situation inédite loolu mosuñ ñëw ñu war a démarrer la campagne dimanche le processus est en cours le matériel électoral est presque en place donc tey administration électorale mu ngi def lépp dem nañ ci formation des des des des plénipotentiaires et tout donc ñu taxaw di ñu indi débat bi nga xamante ni daf ñuy arrière donc c'est inédit même s'il y a des velléités de report en 2012 mais yeggul fii nga xamante on mobilise l'institution parlementaire bu ñu nee présidence de la République am na réunion d'urgence et que le président de la République doit se prononcer donc sur ces faits les députés donc, convoqués le, à 10 heures et non à 16 heures les, les à 10 donc loolu mosul am te li ma jàpp mooy que dans une démocratie le processus électoral dafa war a intègre et pour que l'intégrité du processus électoral soit respecté il faut que nekk ku nekk nekk donc à lu nekk nekk à son endroit fu mu war a ne alors le le on le processus a été lancé def nañ parrainage am nañu éliminé dem nañ dek proclamation liste définitive moo am ñu éliminé nous rappelle que les décisions du conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours loolu ñun ñoo ko choisir dans une démocratie on se soumet aux lois consi on se soumet aux lois qu'on a choisies ñun ñoo tànn constitution def ci loolu li Isaac Foster waxoon euh, euh, euh, président Senghor même nos erreurs donc vous obligent si le conseil le conseil constitutionnel moi je suis convaincu que le conseil constitutionnel justement a commis une grosse erreur je suis pas d'accord une grosse erreur concernant ah non l'affaire l'affaire Karim Wade je suis pas d' accord. il devait passer bind bind benn question rek laa bind sama page Facebook. dama ne si la France est la si la France exerçait une protection diplomatique pour Karim Wade est-ce que le Sénégal allait l'accepter Juan Branco tëj nañ ko fi même fait yi nga xam ne am nañu ci croupir ba léegi ci kaso bi taxawu fi dañoo ñëw jël ko yóbbu ko parce que c'est un Français est-ce que France bu ñëwoon wax Sénégal ndax Karim Wade sama doom la jox leen ma ko ndax Sénégal dina ko nangu. la question de la nationalité non seulement est sensible. Et mieux encore, Karim Wade n'a jamais invoqué hmm. ou fait prévaloir sa nationalité française. La question de la nationalité non seulement est extrêmement sensible, mais dafa am ay mutation au niveau international en droit international. loolu nag xam nga lan moo ko indi président Macky Sall moo ko le conseil constitutionnel dans sa composition te les traditions dans une république dans une démocratie doo ko rompre la neexee le conseil constitutionnel il semble que de droit public. ba mu juddoo ba léegi day am au moins un théoricien de droit public. dans sa composition dans sa composition. de Ibou Diaité en passant par Babacar Kanté même bu nekkee après ñoom Isaac Yang Isaac Yankoba jaar nañ fa même s'ils étaient des privatistes peut-être que war mais c'était des pro agrégés il accompagne la recherche accompagne alors donc les questions extrêmement techniques nga ne ça se pose au conseil aujourd'hui le conseil man jàpp naa ne est mal composé loolu jàpp naa ne bokk na ci premier pôle dafa di que li li li honorable di wax ni conseil bi moom moo leen parce que moo leen di nommé même bu nekkee on a tenté de diversifier la nomination président assemblée national proposer une liste de quatre mu tànn c' est la même chose diggu ñu loolu bi mu ñëw en 2012 dafa noonu day réformer conseil constitutionnel defal ñu cour constitutionnel <coughs> loolu déjà loolu dafa wi di boppam def def def def def leneen donc maintenir le conseil def un léger donc réforme une légère réforme loolu laa jàpp ne déjà c'est un problème maintenant le processus est en cours tey nii amul amuloo benn moyen benn ressource quel que soit nag man jàpp naa ne le PDS ils ont raison mais tey ban ressource nga mën a jël donc ba ba ba reporter les élections tey nii les les listes son sont la liste définitive a été donc proclamée amul benn ressource pour stopper le le le une ressource une ressource juridique pour stopper le processus électoral amul dans la constitution du Sénégal le calendrier républicain est constitutionnel te c'est vrai que fii de Sénégal on a on réformé la constitution pour reporter des mandats comme le mandat des députés donc l'initiative du PDS qui vise à modifier la constitution probablement j'ai pas encore vu le projet probablement pour nee na pour repousser la la la la présidentielle pour six mois c'est-à-dire que c'est une prorogation du mandat du président de la République la constitution prévoir ko et ces dispositions là sont irrévocables on ne peut pas c'est-à-dire dañ ko def clause d'éternité boo demee article 103 de la constitution mënoo modifier en vérité le calendrier électoral bu ñu ko defee bu ñu defee loolu dañuy demaat conseil constitutionnel conseil constitutionnel annulé waat la décision c'est-à-dire que dañuy dugal ci benn imbroglio boo xamante ne ni ñun xam nañ ne y a des insuffisances y des difficultés mais nag processus bi mu fi mu toll arrêté ko stoppé ko ne ko nit ñi buñ campagne alors que tu menaces la sécurité juridique justement des citoyens des candidats yi nga xamante ne alors donc ñoom la ñoom lañ nangu seen candidature donc loolu yaakaar naa ne benn finalement dañuy jàpp ne dañuy indi benn thérapie mais dañu créer désordre boo xamante ne kenn xamul na lay toll loolu laa jàpp ne moom moom mooy te buñ ko defee man mën na am benn beneen beneen bi ay yeneen force politique jóg xeex ñuy xeex mooy que bu ñu adopté la loi au niveau de l'Assemblée te je ne pense pas la loi là parce que une réforme constitutionnelle il faut une majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale Benno ak PDS matuñ trois cinquièmes de la des de, des membres de l'Assemblée nationale au moins que ah, je ne sais pas quelle forme d'adhésion maintenant c'est ce qu'il faut regarder est-ce qu'on peut modifier du fait de la composition actuelle du Parlement est-ce qu'on peut modifier valablement la ko nee na un article proroger le mandat du président de la République parce que la durée du mandat du président de la République ne peut pas faire l'objet de révision et proroger le mandat du, président de la République parce que boo reporté tu proroges mm -hmm. n'est-ce pas donc tu proroges alors que article 103 dafa dafa c'est dispose da def disposition da mettre clause d'éternité donc loolu il faut que nous rappeler ko donc ça veut dire que fii ñu leen moo mën a am def lu la neex def lu la neex parce que dégg naa leen leen ñu ne ma article cinquante article cinquante ne procure pas ça quand le président la invoque les circonstances comment dire ses pouvoirs exceptionnels nee nañ ko mënoo réviser constitution te itamit nag gisuma fi. mais bu dissoudroon bu bu dissoudroon euh, le conseil constitutionnel. n'a pas les moyens de dissoudre le conseil constitutionnel conseil constitutionnel on peut pas les on peut pas on peut pas on peut pas les révoquer comment peut-on dissoudre le conseil conseil constitutionnel xanaa ñu abrogé ko créer cour constitutionnelle. réforme constitutionnelle. te loolu yëpp c'est pas possible. réforme non c'est pas possible. c'est pas possible c'est-à-dire il n'existe pas une ressource juridique qui permet valablement de reporter l'élection présidentielle. Alors, maintenant nag def lu la neex mën na ne. loolu loolu peut-être utiliser une majorité et encore ils n'ont pas cette majorité. may xaar on on va au bout du décompte. xool exactement. mais nag majorité bi mën na nekk de. ah je ne sais pas il se, il se, dit que beaucoup de candidats à l'élection présidentielle dañuy wax nii rek. waaye report bi la ñu mais le problème c'est que nous sommes dans une république alors il y président bi nga xam ne ñëw na maanaam constitution tënk ko de bon fois mu ne man même bu nekkee camp def nañ tout lu ne de mobiliser nañ ko ñoom grand yi lu ne def nañ ko. pour que waaj pour pour pour pour pour pour mu ne leen rek damay uti troisième mandat c'est historique. buñ yàq deminam buñ yàq woyam. no ah. non buñ yàq deminam buñ yàq woyam luñ ko defloo. seen intérêt la ñoom. du intérêt Macky Sall. maanaam tey boo demee boo dépoussiéré nag même bu nekkee ñoom dañu def comme dañ leen di accuser ne dañoo ñëw di di liggéey ak ak PDS ils sont pas dans les intérêts du PDS. ils sont pas xëy na jàpp nañ ne seen candidat ne pèse pas seen candidat moom bu demee élection balaa 11h gars yi woon ko ne yow doo gagné du sax dem deuxième tour te loolu ñoom ils le savent y a les dissensions ci s'il y a une crise politique dans Benno dafa ñi dañoo jaar ni ñuy jaar ni ñuy topp y a aucune aucune autre crise dans ce pays là léegi nag maintenant est-ce que leur problème politique là il faut il faut utiliser les institutions pour les régler ils ont choisi Amadou Ba Amadou Ba ne peut gagner ils le savent et est-ce que pour se maintenir il faudra que ñu manipuler mbëkkante ñi mbëkkante ñu reporter élection yi pour tenter de revenir avec un un candidat qu'ils pensent pouvoir être capable mais sondage yi waxuñu ne Amadou Ba ne du dem fenn. dans tous les sondages Amadou Ba de ah, très ah, loin. non xam nga sondage ñun xam nañ comment on fait les sondages. <laughs> ñun suñu son ñun sondage li ñuy li ñuy dund li ñuy dund fii ci dëkk bi. des villes à la campagne village lay jóg village je suis maire d'une d'une d'une commune dans dans le monde rural Ndiédiène j'enseigne à l'université je à Dakar amul fooy jaar boo dajalee fukki nit neuf yi sont contre Amadou merci waaw loolu c'est c'est ça les la réalité les sénégalais le savent même ce qu'ils mobilisent ñoom ci seen meeting yi ñuy sol seen i t-shirt Amadou Ba bu ñu génnee gis naa booy sax ak Kolda sax ñuy xolli n'est-ce pas loolu c'est ça la réalité politique actuellement c'est-à-dire que c'est pas parce que ils se sont ligués avec le PDS que dañoo bokk intérêt ñoom seen intérêt c'est autre chose ils veulent se maintenir au pouvoir mais c'est pas possible au moins qu'on ne le suffrage universel le suffrage universel moom la constitution njëkkee article merci pouvoir bu président de la république mun a am ci suffrage universel la ko tiré toute sa légitimité tout ses tous ses moyens d'action ñi muy nommé lépp suffrage uni askan bi ñoo ko ne mu ngi nii mais nag bu jeexee dafa war a jeex